Thank you. parti loon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ñu ak see kon ci xibaaru digg ba bëccëg bi juróom-ñeenti fan ci weeru octobre ubbiteeg euh, l'école la ñu xëyee tey jii jëriñ ji ñu dénk njàng mi kon dugg ci daara yi euh, xool fan la yëf yi toll bi tey jàng tey waaye it liggéey yi nga xamante ni euh, sumboon nañu ko fu demee ni Ngalanu Juuf ak it yeneen i béréb jàpp nañu ni la ci solo kon jëf nañu ko ba nuppi gone yi kon ñëw teew naka noonu jàngalekat yi leen jiitu ci daara yi danañu xool. Euh, loolee lépp waxtu woo xamante ni euh, yow Selim moom coow la doxoon na digganteem ak nguur gi mënees nañoo wax kon ni euh, loolee daal di nay jeex ndax daal di nañuy jël dogal ñoom avocat état génn kon ci boobee dossier avocat yi nga xamante ni ñoom ñoo doon layool yow Selim jàpp ni kon ndam la am nag élèves yoo xamante ni ñoom gannaaw coow li dal woon seen xel tàmbali woon nañu wut yeneen yi béréb yu ñu dugg loolee lépp ak rentrée bi kon nu ñu ko mën a jàngee danañu ci gan ci kanam tuuti seen secrétaire général kon euh, SAEMS moom la ñuy dalal mooy doon gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi monsieur Sène maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Adja Ngoné di nuyu téléspectateurs yi. di rafetlu kon teewaay bi waxtaan wi dinañu ko wéyal ci kanam tuuti danañu àddu it euh, ci euh, leneen accident yi kon ci tali bi ak euh, màggaluk Touba ñi cay def choc kenn ñaanu ko kon danañu leen damp ku ca ne lu toll ci 750 000 mën a dem ba ñaari million ak xaaj ci ñi nga xamante ni accidenté grave lañu wala kon lu demee ni ña cay ñàkk kon seen bakkan ñu fas yéene leen taxaw association Nasru di Safar ñoom ñoo moo xamle lu ni mel xëy am ndaje ak waaye taskatu xibaar yi kon na doon janoo kon ak presse bi nañu ci dikk ca kanam tuuti ak lañu ca jëlee ponk yango kon mbokk yi bu ñu ca toftalee wàllu tàggat yaram ñu fas ko yéene yaatal muy li fi jot a mbokk yi dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak euh, artistes yi euh, nekk ci dëj waxtu yi ak génn nday euh, Ndeye Diarra Gueye Ndeye Diarra Gueye kon guddik dimanche gi jàppal ci nekk tey kon ci la daal di rek wuy ji boromam ñu xamoon ko lool ràññee ko ci languk musique bi ak titre bi di kon jàmbal gaa ñi soppoon ko lool génn na àdduna kon ñuy koy ñaanal suuf sedd sedd ci kawam di ko jàll ay euh, euh, njabootam euh, école ubbi na kon juróom-ñeenti fan ci weeru octobre bisub tey ji lañu ko jàppoon xale yi xëy wutali béréb yi kon ña ca gën a tuuti ànd ak seen i waajur ñeneen ñu mag ñi kon dem daal di fas yéene jàkkaarloog seen i professeur jëwriñ ju nga xamante ni moom lañu ñu wàllu njàng mi Serigne Mbaye Thiam moom it xëy na sol dàllam dugg ci daara yi daal xool fan la yëf yi toll ubbi tey jàng tey ndax loolee sotti na liggéey Euh, fan la toll la ci ëpp ñu ni euh, loolee daal di nañu koy euh, doxal Aminata Mari Sow Thierno Laurent Mendy ñoo toppoon ci doxantu bi. ak doxub nemmeeku bi ministre de l' éducation nationale amal ci yenn école yi nekk fii ci ndakaaru nemmeeku googu nag li ko waral mooy xam ndax jàngale mi dàmmali na tey ji nga xam ni école yëpp dañoo war a ubbi fii ci Sénégal. li nga xam ne moo doon suñu yéene mooy ren ji gën gaa tuuti ci fanweer yi école tout tànk gën gaa ci fukki collège gën gaa tuuti ci juróomi lycée ñu mën faa def ubbi tey jàng tey mu nekk yokkute par rapport ak li ñu defoon daaw ñoom ñëpp nee nañ ma yéene boobu ñoom danañu passé lu ëpp loolu. li tax ñu tànn Ngalandou Diouf tey jii mooy que ne ñoom dañoo am sas ndaxte bi ñu defee conseil des ministres délocalisé fii ci dakaar président Lat def na woon dana jël milliard ak genn wàll jagleel ko ñu defaraat yenn écoles yu màgget yi lycée yu màgget yi. Euh, Ngalandou Diouf ci la bokkoon. ministre de l' éducation nationale jàpp ne ubbi tey jàng tey lu mën a ne la wante sax ñenn ñi dañuy wax ne yenn école yi daa am ndox moom mu jàpp ne loolu warul tere mukk xale yi tàmbalee jàng. parce que soo jàppee li am école ak collège ak lycée ci Sénégal soriwul euh, juróom-ñeenti junni juróom-ñeenti junni nag mënoo cee seppi ay téeméer yoo xam ne yii xëj na wala sax lu néew téeméer. loo xam ne lii dafa am ndox mu fay taa wala dara nga ne ubbi tey jàng tey doxul Sénégal ndax am na ay écoles yoo xam ne yi am nañu ndox. fii ci lycée Ngalandou Diouf di lycée boo xam ni bokkoon na ci yi ñuy defaraat njàng mi door na su dee sax ñetti ci ay classe fi ñu toll nii mënuñu dalal seen i liggéey yi ñu ci doon def ba léegi am na classe yoo xamante ne pareegul donc waaye loolu du tere euh, ñu commencé cours yi. parce que mënuñu toog di xaar aussi ay liggéey yu pare ñuy toog a tàmbali non bi ñuy xamee ni classe yi du pare dañ jël ay matukaay jéem a seet feneen fu ñu mën a defee cours yooyu te loolu jot nañ ci waxtaan ak ñi ko seq ñëpp ba mu deseguñ élèves parce que élèves yi gisaguñ leen woon. ci noonu sax proviseur bu lycée Ngalandou Diouf ne am nañ ci solution ndaxte ñetti classe yooyu la nga xam ni ay élèves première ñoo fa war a jàngee dañ leen di yóbbu ci école Nafisatou Diallo ñu fay jàngee boobak liggéey bi di pare fii ci lycée bi li ma ngoog kon euh, jëwriñ ji xëyoon doon nimiku euh, lekool yi fu ñu toll euh, ak it gone yi ubbi tey jàng tey Saourou Sène secrétaire général SAEMS e dellu nuyu la ci ndorteel la yaa nga woon kon ci doxantu bi noo gisee ubbi teg yi waaw euh, damay euh, commencer d'abord par nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan fii ci seen télévision bi euh, souhaiter aussi une bonne année scolaire élèves yëpp parents d'élèves yi rawatina jàngalekat yi effectivement bu ma xëyee ce matin ñëw naa topp délégation ministérielle bi xool déjà fi nga xam ne foofu la ñu commencé ci yenn écoles yu nekk Colobane li ñu mën a jàpp rek mooy effectivement engouement am na pour ñëpp jóg ñëw école mais du càggan nag ñu nit ñi buñ ñëwee école rek dañuy dal di commencé cours yi am na foo xam ne gis nañ ni euh, parents d'élèves yi dañ ñëw ànd ak seeni doom yi pour inscrire mu nekk loo xam ne dafa nekk tradition bu yàgg fii école bu ubbee ñëppay sol seen yére ñëw école mais du caagan ne dañuy dal di commencer léegi alors ñun nag ñu bëgg ko fësal tamitam suñu nangu slogan boobu nga xam ne mooy ubbi tey jàng tey muy slogan bu baax boo xam ne mën na au fur à mesure installer culture démarrage effective des cours bu dee école ubbi naa mais li wér te wóor mooy rek. mais concrètement loolu ba tey dafa mel ni slogan bi moo gën a fës. slogan bi nag moo gën a fës. parce que mais réalité bi leneen lay. xam nga dama la wax léegi am na benn tradition bi fi nekk boo xam ne jour rentrée scolaire ci la parents di yóbbu seeni doom pour inscrire leen ñenn ñu bëri aussi ci la ñuy ñëw pour xam yan classe la seen doom war a def ci année scolaire bi beneen bi ci tegu nag te gën a garaaw nag mooy que pas parce que dañ nekk nekk Dakar rek yaakaar ne li xew Dakar moo xew Sénégal fépp am na ci biir réew mi ay abri provisoire yu bëri bëri bëri ci lim bu takku boo xam ne boo xoolee lim boobu rek da ngay xam ni ubbi tey jàng tey mënul nekk réalité foofu li ko waral mooy mais foofu école yi dañ leen defaree sàkket te bu tawee sàkket yooyu dañuy dem kon il faut que ñoom ñu xaar euh, hivernage bi jeex ba pare euh, parents d'élèves yi ñëwaat defaat seen sàkket yooyu fu mel ni ay Bounkiling ak zone c'est des abris provisoires mais yooyu il faudrait que ñu xaar nawet bi dal ba pare ñu door ko euh, ñu door a mën a commencer seen jàng. mais souvent abri yooyu boo koy wax dañuy wax ni way état am na euh, processus boo xamante ne dugg na ci pour defaraat ko mais est-ce que tam warul woon gën a am volonté quand même pour régler ko bu ñu xoolee. seen lim ni mu takkoo ci ci ci biir réew mi. loolu mooy mbir mi xam nga damay faral di wax ni rek mbir mi du wax kese jëf aussi ci la ndax boo xoolee dëkk bu mel ni Sénégal di wax boppam pays ressources humaines de qualité te ressources humaines de qualité yooyu mënuñu leen jële fenn fu dul école école boobu nag bu dee coow li moo gën a bëri jëf ji mais bien sûr que ay problème rek la ñuy am li wérte wóor mooy état bi war na mën a am un programme donte wax nañ ni am nañ ko de résoption des abris provisoires tant que loolu amul munuñu am une école démocratique parce que nag rentrée effective buñ ko amee dafa war a nekk pour doomu Sénégal yi yëpp boo nekkee Dakar nga mën a jàngi boo xëyee boo nekkee aussi euh, Ebarak wala nga nekk euh, foo xam ne mooy Njagañaaw dans les zone rurales mais foofu nga mën a xëy tamit am jàngi comme ñëpp mais bu dee yow wóor na la ni école ubbi na tey mais seen école comme sàkket lañ ko defee woon mënoo fa jànge mais c'est sur que parents yi sax du bàyyi xale yi ñu dem donc yooyu dafa nekk ay réalités yoo xam ne mbir mi que teg loxo ci question yooyu je crois que bu ñu koy wax c'est pour inviter le gouvernement ñu gën a am pragmatisme ñu gën a am beaucoup de farlu justement ci question yi pour que euh, xëj na dinañ yegg moment boo xam ne ubbi tey jàng tey dina mën a nekk lu effectif gis nañ travaux yi tamit euh, gàllankoor na ñenn ñi euh, xëy na li ci ëpp solo ñeneen def nañ ko ci yenn béréb yi mais am na ñoo xamante ni dañ leen mujj obligé yóbbu kon reportage bi ñu ko wone ci yeneen i béréb ay première ak yooyu parce que xëy na liggéey yi ñu doon def parewul bien que xëy na 3 mois vacances yi mayewul ñu àggale loolu yëpp. waaw loolu mooy problème bi gis nga école boo bëggee débuter octobre gis nga booy tëj école mois de juin. liggéey yooyu dañ ko war di commencer tout de suite c'est vrai que nag juin à octobre dañuy am période de pluie nga xam ne am na liggéey yoo xam ni taw bi sax mën na empêcher mu démarrer mais li wérte wóor mooy bu dee am na volonté réelle de faire loolu mënuñu tere ñu yegg si à un certain niveau dama bëggoon fàttali rek Sénégalais yi tamitam que ñun mais suñu période d'hivernage bu bëree ba bëri ñetti weer la ñeenti weer te am nañ ay dëkk yoo xam ne day taw tout le temps donc bu dee ne day taw tout le temps am waaye yépp ba loolu du doon gàllankoor je demande comment ñun taw rek mën ñu empêcher ñu def liggéey bi nga xam ne war na mën a permettre école bu ubbee rek ñëpp commencer seen cours yi ci bisub tey bi rentrée bi doon nañu bàyyi xel loolu mbirum yavu selim euh, foofe nag tey jii ci kanamu ëttu attekaay bi leneen daal di dañ cay euh, feeñ avocat yu état ñoom dañoo daal di kon euh, désité daal di jël dossier bi kon teg ci suuf ba waral coow li mënees nañoo wax kon jeex na loole nag mbetteel jur ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di avocat yu yow selim sa waaye it ndam lañu ko jàppee ci ngonu tey ji nag am na ndaje moo xamante ni war nañ ko ci amal diggante ministre ministre de l'éducation ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa yow Selimé saa moom jëwriñ ci boppam àdduna ci ci micro Pape Sangone Mbaye nga xam ne ñun moo ñu soxal tey jii ñu gis ñu dugg ci ay classe gis fa ay xale yoo xam ne yi ñu ngi jógee groupe scolaire yow Selim ñëw fi Ngalandou Diouf di fi jàng loolu dañ ci kontaan parce que kat dafay wane ne gouvernement bi eh, digal yi mu joxe woon inspecteurs yi ne leen bépp xale boo xam ne bii comme am na ay jafe-jafe yow Selim bëgg na faa jóge ñëw ci établissement public yi nañ ko teeru nañ ko ci dugal accueillir ko bu baax bind tamit école privée yi ne leen ku fa bëgg a jógee nañ ko teeru loolu day wane ne problème bi ak lu mu tar tar tar li nga xam ne ñun ñëpp moo ñu soxal mooy xale yi continuer di jàng soo gisee ñuy waxtaan sax fi mu nekk nii ak parents d'élèves yow Selim ak enseignants yi ak seen conseil d' administration mooy ut loo yoon boo xam ne danañ fa aw pour xale yi bëgg a des foofu aussi continuer di jàng loolu rek mooy soxla gouvernement bi. ñoom jëwriñ ji euh, doon naddu ci kon ñi nga xamante ni ak coow li ak selim taxu woon nañu wutali yeneen i lycée euh, demee ni Ngalanu juf boobu wala feneen euh, niñ ko waxee nag tey ji mel na ni coow li réglé wu na awoka yow selime sa maître Mbaye Sarr daal di ci addu moom it daal di rafetlu mbir mi jàpp ndam la nguur gi gannaaw ba mu delloo see xelam ñu teewlu ko ci micro kii di Mame Birame dafa dellu ginnaaw dañoo laye woon le vingt cinq àttekat bi jox ñu rendez-vous tey ne day wàcc dogalam ci diggante bi avocat état du Sénégal bind benn bataaxal yónnee ko président du tribunal ne ko dama bëgg au lieu nga àtte ñu le neuf bi ñu waxoon dama am benn kayit gu ma bugg a dugal mooy arrêté di 11 septembre ma bëgg nga ubbi waat waxtaan yi pour ma mën ko dugal euh, donc tey bi ñu ñëwee juge bi ne dama jot benn bataaxal bu jógee ci avocat état bi ñuy laaj ma ubbi waat waxtaan bi pour ñu déposer arrêté bi kon ubbiwaat naa waxtaan bi donc maa ngi leen di déglu yéen état du Sénégal ngeen joxe seen xelaat ci arrêté boobu mais yéen ñëpp xam ngeen ne arrêté du 11 septembre boobu bi ñu laata layoo la cinq arrêté bi amoon na ba pare ci kaw arrêté boobu la état bi sukkandiku woon tëj école ndar yi ci arrêté boobu la état bi sukkandiku woon tëj école Kaolack yi kon mu nekk ne ah, benn porox ndolo la bunt la pexe la woon rek pour ñu ubbiwaat waxtaan yi mais li ñëw ci bett mooy biñ ko joxee kaddu au lieu mu wax ci arrêté bi dafa ne man maa indi woon ci yoon. ne dama bëgg ñu teg loxo école Yavuz Selim yi pour dénk ko maari wax jooju bàyyi naa ko dellu naa ginnaaw kon tribunal bi ne ko kon ka yaa fi indi woon euh, waa Yavuz Selim SA waa Bashkent fii ci attekaay bi ne nga toppatoo leen dara bàyyi nga wax ji ci suuf bàyyi nga teg loxo bi nga bëggoon teg loxo école yi ci suuf kon nangul naa la ko. maître Moussa Sarr avocat yow Selim euh, Sawru euh, moo leen fa yóbbu woon moo ko teg ci suuf euh, doxalinu taa ci bi dossier. waaw muy mbir moo xam ne ñun ñëpp rëccu nañ ko lu tax ñu rëcc ko mooy d'abord commencement bi mooy yow Selim ñëpp xam nañ ko. école bu ràññeeku la école buy def ay résultats yu baax la dañ yaakaaroon ni yow Selim dañ ko mën a jël comme modèle euh, d' enseignement scolaire te buñ ko jëloon comme modèle dañ ci war a topp xool naka la ñuy def pour améliorer suñu système école bu mel noonu nag ak li mën a xew mën buñ ko tuddee raison d' état ou autre l' essentiel est que dañ waroon comprendre que c' est un c' est patrimoine le Sénégal ñu waroon ko veiller li ci xew yëpp gëm naa ni même si état bi bu reculé woon tey installé na déjà ci xelu xale yi nga xam ne ñoo doon jànge foofu la suspicion donc du loo xam ne luy aider à ce que école boobu mën continuer ci lancé bu mu nekkoon. mais niñ ko doxalee coow li bari euh, ministre de l'éducation dëgëral fii ministre de l'intérieur yebal fa ay policiers pour euh, au final nga ñëw nga ni maa leen fi indi woon euh, bàyyi naa ko tamit est-ce que du am benn certaine légèreté. mais loolu loolu laa la bëgg a wax rek gis nga état lu sérieux la état mënul nekk ay parax parax lu xew dañ ci war a ànd. ak dal ak tey nangoo déglu d'abord avoir le sens de l'écoute je crois que c'est important parce que damay faral di ko wax ni dans ce pays là dafa mel ni dafa am ñoo xam ne dañ yaakaar ni du ñu ay citoyens honnêtes et que l'honnêteté citoyenne wala le patriotisme waa nguur gi rek ñoo ko yelloo alors que Sénégal suñu Sénégal la fii amul ku jóge bitim réew pour ñëw wax lenn ñun ñi fi nekk ñun ñu nenn te Sénégal rek moo ñu soxal exemple pour exemple gis nga fin d'année bi weesu bi ñu sentiree yaa fuite au niveau de de la philosophie xam nga dañoo dawoon ñëw wax waa ministère attention balaa bac bi di commencer problème am na ñoom ñu tànkam lu ñu non seulement dañ ñu tànkam lu moo won ñu nii déjà ñun loolu ñu doon wax teguñu ko fenn bac bi bu mu commencer gis nga affaire Yao selim bu mu yegsee tamitam ñun jóg nañ alerte nañ neleen leen attention école bi patrimoine u Sénégal la problème bu fa amee nañu toog d'abord waxtaan te toog waxtaan dafa nécessité nga déglu interlocuteurs yi yépp la ci xam ne moo ciy génn mu njëriñu réew mi di njëriñu askan wi di njëriñu école Sénégal ngeen jël loolu. mais mais lu force yi dëgëral jàkkaarloo euh, coow li bari pour que finalement ñu ñu ñu euh, xaw mën a régler mbir mi. Mm-hmm. est-ce que jaroon na ko wax nga ko xale yi perturbé nañu leen ci wàllu police buy taxaw parents d'élèves yi ñenn ñi jaxasoo. génne seen doom gis ay parents d'élèves ay parents d'élèves yu di jël seen doom yooyu yóbbu ko feneen te jaru ko woon li ko indi lan la coow boo xam ne kenn xamul bopp be génn bi ak un euh, quand euh, comment dirais-je école aussi importante que yow Selim wax nañ ko beneen élément bi mooy mais écoutez euh, quelle que soit la raison d'état évoquée li am solo ba am solo mooy boo choisiree la voie de la démocratie tu as le devoir d'expliquer à la population population bi moom am nu droit à l'information bu ñu amee droit à l'information ñun nous sommes suffisamment mature pour xam li nga xam ne moo arrangé Sénégal ak li arrangé parce que ni ko ñenn ñi di waxee xeex la bu jógee feneen ci beneen réew ñëw daanu ci biir Sénégal je crois que ce n'est pas à l'honneur du Sénégal ce n'est même pas respecter la souveraineté du Sénégal Mhm. yooyu mooy problème yi nga xam ne indi na ko mais de toute façon encore une fois de plus ñu ngi bokk naqarlu li dal waa Yao Selim te wax ni tamit mais comme léegi ak dal am na xëy na jàmm am na dinañu gën a xool yenn dogal yi. waaw parfois dañuy wax ni policier moom bu tàmmee dóor du ko bàyyi et j'ai l'impression que dañu am un état boo xam ne c'est un état très policier un deux ñu dal di indi police gis nga à l'ouverture dañ indi foofu Yao Selim ay policiers enseignants yi keroog nañu suñuy problème la xam ne dañ ko signé accord mais du ñu joxe suñu not police lañ leen yónnee je crois qu'il faut qu'on arrête cette histoire de police euh, au niveau de de l'école parce que nag école leneen lañ fay xaar lu dul ay police wala ay gémi nataama dikat euh, ci seen euh, kon euh, ndortelaat mi ak yéen jàngalekat yi ñu ngeen ko dundee ñu yëri gone yi fële ca boori Cap Skirring foofee ñoom ay classe la ñuy laaj ndax nee nañ yenn saay bërëb yi dafay xat lool table banc yi dañ ciy toog par ñeenti gone boole kook yeneen yi jafe-jafe ñu daal di janoog waaye taskatu xibaar ya wax la leen naqari ca seen daara Boubacar Diassi Lamine Mandion ubbiteef l'école ca bët sàllum réew mii ndaw yu fekk baax ci Cap Skirring yëkkati seen kàddu ngir teg ci taabal bi bëgg-bëgg askan wi. jafe-jafe li jëm ci tey wàllum njàng mi nekk na li am solo lool ci biir ko ndaxte sunu école yi yu ñu fi jot am dem na ba fees xale yi dem nañ bay toog par trois voire par quatre ngir salle de yu fees ñuy ñaan. la construction de nouvelles école wala même en hauteur pour des désengorger euh, classes yi nga xam ne ex na pare mais également ñu am ay école de formation pour permettre suñu rakk yi nga xamante ni am nañ seen bac dem à l'université amuñu sens seen jàng bënn ñu mën a def formation pour mën a jàppale seeni seeni seen i ndaw yi jëno fii ak taskat xibaar yi daal di ci profitoo ngir dellu si yeneen jafe-jafe yu askan wi di jànkonteel li jëm si secteur santé bi nekk nañ tey benn kër bi nga xam ne lu muy jot ci ay gan yu dugg génn ay téeméer la jàpp ay junni ñu bëggoon également te ñooñu di ñëw kenn xamul seen état de santé dañuy jóge ci sous-région bi ci mel ni Guinée Bissau ak fu nekk mën a indi feebar bu nekk jox ko population bi épidémie te amul benn matuwaay bi nga xamante ni am na comme projet santé bu mën a protéger population boobu ñu ñaan état bi ñu jàppale ñu ba relever plateau médical bi nga xam ne moom la ñu yor ci commune bi ndaxte mu mën a jël en charge question de santé population bi. jot si ndox mu sell mi. moom it beneen jafe-jafe la. ndox mi depuis 43 ans kat mi ngi dund ndox mu ñuy naan nekk na ndox mu bon ndox bu ñuy rootee rek ci teen yi amul benn robinet fa am fii kap te tey ndox nekkatul benn luxe benn nécessité la bu population bi soxla. ndaw yi taxawal am mouvement citoyen te wax ni dinañu wéyal di fàttali nguur gi jafe-jafe yu askan wi di jànkonteel ci seen i gox. ngir ñu mën cee taxaw ci anam bi gën ci ñoom. Ferrou très rapidement ci question bi ñu ngi ko doon wax ci ndorteel xibaar yi abri provisoire yi table banc yi ñuy toog par euh, quatre élèves euh, yenn say classe yu xat euh, monté budget bi ci wàllu njàng mi gis nañu ni ñàkkul solo mais ba tey ji jafe-jafe yi ñu ngi ci bier secteur bi où se où se trouve le problème waaw le problème c'est que on a dañoo bëgg a def économie ci école bi c'est comme si waxuñu comme mais c'est ça aussi dafa mel ni école dafa war a traverser lu ñuy wax benn ajustement structurel ce n'est pas qu'au niveau des tables bancs mais même personnel enseignant bi dafa des parce que boo gisoon politique u redéploiement boobu état bi defoon jël ay jàngalekat fii pleine année scolaire yóbbu leen feneen parce que dañ gis ni daal ñoom daal dañ war a def calcul bu war a permettre dépenses yi daal dañ koy minimiser euh, le autant que faire se peut te loolu mënul nekk loo xam ne dina dina dina aider école bi mu dem gis nga école fu mais ñu ngi koy minimiser dugal nañ ay milliards mais budget bi chaque année day yokku budget bi chaque année day yokku mais budget bi bu dee day yokku te jafe-jafe nekk fi c'est-à-dire budget boobu il faut ñu xool naka lañ koy utiliser est-ce que utilisation bi c'est rationnel de toute façon moi je ne suis pas nekkuma spécialiste des finances mais li wér mooy foo xam ne yow da nga fay joxe sa dépense chaque jour mu yokku te liñ lay indil comme togg mais amélioré wul je crois que war nga mën a taxaw xoolaat loolu ndax lan la structure, en termes de personnel, en termes de tout ce qui devrait aider à une euh, ñu am école boo xam ne école bu normal la. Mm-hmm. loolu dafa des ba léegi. en tout cas li wérte woor mooy nguuru Sénégal. mënul ñàkk recruter ay jàngalekat bu dee bëgg na njàng mi normal. ci wàllu njàng mi sëwru ci wàllu njàngale mi yéen ñi ko yor. Mhm. Euh, secrétaire général SAEMS ci SAEMS bari na mhm. syndicat yu yëglu. Euh, ni ñoom danañu déposer euh, préavis de grève. Mhm. ci ngeen bokk lu leen naqari rapidement at mi daloon na lu tax ngeen bëgg a tàmbali at mi ak ay ay revendications. d' abord daaw at mu daloon na comme di nga ko waxee. mais at moomu li taxoon mu dal mooy ñun dañu yaakaaroon ni ñun rôle bu ñu am ci société bi waruñu togg ba société bi jéppi ba tax na ñu teg lépp ci suuf mu dal parce que nag li ñu doon wax à l'époque dafa nekk ay accords yoo xam ne dañ ko signé en 2012 ñëwaat 2000 ba 2014 ñu rediscuter waat ko ak nguuru Sénégal amaat ay accords yu bees xam nga discussion sur des accords mosul am mais ñun de par notre patriotisme ñoo ko nangu ñu ne d'accord comme régime bu bees ne nañ toogaat waxtaanaat accords yi bu ñu ko waxtaanee te ñëw 2014 am protocole bu bees mais protocole boobu ba 2017 fii am ay poñ yu bëri yoo xam ne. dañ nekk ci protocole bi état bi respecté wut gis nga xam nga question yi nga xam ne demaatu leen waxtaan tuuti non mais xam nga pour ñu waxtaan ñoom ñooy woote nguur bëgg ku leen woo kon jamono non déedéet déedéet non non non du loolu xam nga xam nga quel est problème réel il faut que sénégalais yi def la différence mhm. entre les questions de bonne gouvernance ak question wu accord yi gouvernement bi à chaque fois buy développé ci question bonne gouvernance la est-ce que vous pensez que pour un fonctionnaire bu avancé war na mun a dem grève pour jot avancement am déedéet jaru ko woon l'État bu defoon li mu war a def ci actes yi ñuy génn muy fay mu leen di mettre en solde question de gouvernance yooyu dañuy féete boor mais leneen li nga xam ne nag depuis keroog ñu ciy wax mooy le système de rémunération président de la République moo ne woon système bi gis na mu wone mu mu def résultat étude bi jox ñu la document président jot na document bi waxu ci dara six euh, indemnité de logement des enseignants ñëpp d'accord nañ ni moo gën a néew ci tous les agents de la fonction publique ñi nga xam ne enseignants yi ñoo leen ëpp diplôme foofu ñoom ñoo leen ëpp indemnité de logement donc gis nga gis nga question yooyu question yooyu bu dee nguuru Sénégal de le début de l'année balaa ñuy dem vote budget assemblée nationale parce que nag député yu peuple aussi ils sont interpellés ñoom ñooy séddale alalu réew mi bu dee nag jàngalekat yi dañ yaakaar ni amuñu benn pàcc ci alalu réew mi mais bien sûr kenn mënul am at bu daal merci beaucoup Saurou Sène moom mooy secrétaire général SAEMS CUSEMS moom lañ doon dalal euh, du ñàkk yeneen i débat ñu dellu si ci wàllug euh, njàng meek euh, njàngale mi jaajëfal la ci mm-hmm. sa disponibilité di la jaajëfal wax ni daaw à pareil moment ñu yàlla fekke fekkee ay déwén amiin amiin amiin tal ko jërëjëf Soro Sène moo doonoon gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi France la ñuy wutali ak étudiants sénégalais yi jafe-jafe fa daan ci wàllug euh, logement loolee suñu ginnaaw la féete nguurug Sénégal euh, signé na ak euh, benn bailleur Ibrahima Camara Mariama Ba. kuréel bi yor wàllu ndongo daara Sénégal yu ne sa bitim réew xaatim ab lëkkaloo digganteem ak kër gi di Koalia di yëngu si wàllu luwaas fii si France. dëkkuwaay di lu jafe lool si ndongo yi bàyyeekoo sa Sénégal xaatim boobu dina tax ba ndongo daar yooyu dootuñu tumranke ñu wax ko ñu bañ ko wax xale yu bëri ñoo ngi ñii dañ ñëw duñu am fu ñu nekk ñii am seen xaalis ñu am fu ñu fu ñu nekk aussi parce que li ñu am ak li leen laaj pour ñu mën a am un logement décent des donc am na ñoo xam sax dañ ñëw mais boo xoolee du ñu am doole boo xam ne mën na tax ñu mën a jëlal seen bopp logement bu ndongo bi amul la dëkkuwaay njàngam mënees na see yàqu bailleur bi di yaa bàyyi xel lool mbir moomee ba tax mu comp si lalam yooyu tollu ci fukk ak juróom-ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméeri lal la yemu am fii si France jagleel ko ndongo yu bàyyi ko Sénégal. ndongo yooyu ñooy doole Sénégal te seen réew wu dafa am yaakaar ak lu muy xaar ci ñoom moo tax faw seen xel dàll ngir ñu mën a àggale seen njàng delluwaat seen réew ba ñu bàyyee ko ngir jariñ ko. Euh, important boo xoo de ci résidence privée li lay facture mënoo ko am avec moins de quatre cent cinquante voire cinq te yaay fay sa courant yaay fay sa ndox waxatuma euh, internet ainsi fii lépp lañ koy am et foofu aussi pour nga am logement dañ lay laaj ay garantie ubbite école ren ji nar a baax lool ci ndongo yi mu nar a yokk itam ci semaine yi ñu dëgmal weer mbaa yi ñu jëmma màggalug Tuuba ak euh, accident yi ñuy faral di nimiko ci euh, tali bi du lu gaañ ñi euh, bëgg waaye lu ñuy dund la loole nag kon laaj ñu taxawu leen diggante 750 000 jàpp ñaari millions yu teg kon ci gravité accident bi loolee kon association Nasrou di Juste ñoom ñoo ko sumb di laaj nag sénégalais yëpp daal di ci jàpp ak ay carte de solidarité yoo xamante ni kon dañu koy jaay diggante 1000 francs ba 12 500 ki doon janoog waaye taskatu xibaar yi Pape Fara Ñing Nasru 18 Safar di jàppale ñi nga xam ne ñoo am ay accident ci yoon bi bu ñuy dem ci màggal Touba indi leen nag ndimbal lu am solo. lu war la. li ñuy def nag mooy lan fexe ba taxawu képp koo xam ne da ngaa jóg jëm si Touba ngir màggal bi ak diir ba nga fay ne ak boo fa jógee di dellu ba ba ngay yegg fa nga jóge woon tolof tolof boo fi am ci wàllu oto yi ak lu mel ni saxaar ak demukaay bu mën a doon ñu mën laa taxaw. ba sam paj dara bañ la cee war. ndimbal loolu nag toll ci sept cent cinquante mille francs ba ci ñaari millions ak genn wàll lépp nag mu ngi aajowoo ci accident bi dayoo bi mu toll. yàlla dafa dogal mu ñàkk ci bakkanam mën nañ dédommager njabootam ba deux millions cinq million mille francs ki nga xam ne dafa loru ci accident ñu faj ko ba noppi daf ca lañ ca war a def lépp mu bàyyeeku lu mel ni laa ko wàññi ay man-manam kooku itam mën nañ ko dédommager ba. deux millions cinq cent mille francs ngir nag xalaat boobu ñu mun koo réussir ñi di Nasru 18 Safar tàllal loxo ñëpp ngir mun a fay lii di prime d'assurance bi. ci biir loolu itam nag xam nañ ne am na ñu mën lu bari am lu mën lu néew ñu boole ren ci initiative yi ñu xam ne taxawal nañ ko ngir mën a collecter prime bi ay carte kart yoo xam ne carte dimbalante la carte solidaire yoo xam ne am na bu douze mille francs am na bu cinq mille am na trois mille am na ba mille francs jéem koo tas ci mbokki taalibe ak ñi nga xam ne jàpp nañ day leen itteel pour ku mu itteel nga xool ba ca sa yéene ak sa man-man tollool nga jël ko ci bu ko defee loolu nekk sa participation ci biir lii association loo xam ne nii dañ ko ubbi ngir ñépp moo xam taalibe Sëriñ Tuubaa nga moo xam murit nga moo xam ku dul murit ñu yor organisation bi nag di fàttali ne ndimbal lool nag mun ko jagleel ci ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci oto yoo xam ne am nañu assurance ngir tamit ñu mën a teg ci yoon bi oto yu baax. dernière nag basket coupe du Sénégal douane daal di dóor duc 62 48 la jongante bi mujje waaye yombul woon ba ci troisième carton bi yëf yi seere woon loolu waa duc jàpp ni expérience moo leen xaw a manqué ca boobee match euh, roi bi ak reine bi ñu daal di leen ci sargal bu baax Fafara ñi nga ak Younous Diatta ñoo ciy dellusi AS Douane nag nekk ci kaw basketball bu Sénégal ñii di gabalu yi nag ñoom ñoo gañe ñi di étudiants yu Dakar Université Club juróom-benn fukk ak ñaar ci ñeent fukk ak juróom-ñett ci bu seere woon lool ndam li nag ñu ngi ko amee ci njeextalu match bi ndax ñoo tolloo woon poñ ba ci ñetteelu carton bi. lu doxul woon rek mooy dañu dañu manqué woon euh, connexion entre ñun parce que dañu toog lu yàgg joué wuñu maintenant euh, dañu jël temps mort daal di waxtaan ak ñoom yeewaat leen si si ay xel. ñu xam ne euh, suñu suñu gagné titre bi leen dugg si histoire bu basket dinañ dugg si histoire bu Douanes et puis voilà booy yi daal di daal di daal di fekkatuwaat euh, euh, gën a concentré wu gën a def rigueur ak abnégation daal di gagné match bi. ñàkk expérience équipe bu am ay ndaw perte de balle yu bëri loolu lépp bu dajee. faaw nga ñàkk lii di jongante bi. sargal équipe bii gagné quand parce que ñu ngi doon joué équipe yoo xam ne moo nekkoon mooy champion Sénégal équipe boo xam ne wane na mérité na victoire am boobu ñun dañu ñëwoon en outsider mënoon nañ am match on a mis des stratégies pour les faire douter on l'a eu boo xoolee score bi détaché wu ñu benn yoon. troisième quart-temps ñëw nañu mënee un point quart-temps mënee ba un point c'est là où a pu marquer scorer parce qu'on avait deux fois erreur de jeunesse jeune bi bëgg a scorer ça sont des trucs qui arrivent et moi je pense qu'ils ont été ñoom li may wax mooy maa leen di remercier jeunes yi. waaye laataa loolu buur bu góor bi ak bu jigéen bi ci wàllu basket ñu teg leen ci seen gàngunaay ci xumbute bu doy waar. saison wàllu basket bi ñu joxe ci ay raay yu bëree bëri waaye nag saison bu réussir lañu ñu mën a wax ci AS Douane moom mi nga xam ne daanaka lépp moo ko gagné. waa bi luy Adams ren bi ndey seen ñoom it daal rafet lu tabb nga xamante ni moom lañu ñu leen tabb xam leen ni nag dinañu gën a góorgóorlu rawatina jàppale seen i équipe ñu teewlu seen i kàddu ci micro suñu reporter. naa ne du équipe nationale championnat gën a confirmé loolu moo tax ma am ne mais si dama si sant yàlla ba mu bari di sant équipe bii de Dakar joueurs yëpp ma si jàppale ak coach yi yàlla def daaw jëlunu dara ren ñu ñëw jël ñetti coupe dañ si sant yàlla ba mu bare di remercier euh, liggéeyu coach bi xam ne liggéey na bu baax si équipe bi mondial bi moom xam nga ñu ngi koy préparé ñu ngi fi heure bu ñu woowee rek xam ñu ñëw yaakaar ngeen def yaakaar naa yaakaar naa ko am fa taxawaay bu baax bu rafet sax. mbégte la mbégte di si sant saa ne xam nga lii moom mbégte la jël championnat jël coupe c' est loolu neex après am roi am révélation après am meilleur entraîneur lii moom mën nañu wax saison bi moom alhamdulilah. ministre des sports moom doon rafet euh, rafetlu Aliou Cissé ni mu defee daal euh, coaching bi digganteem ak Cap Vert ba am kon euh, ndamal ñaari ball ci dara moo xam le ni suñ jongante bi ñu war a seq ak Afrique du Sud fukki fan ci weeru ko novembre loolee dinañu ci jàpp bu baax ba jëlee ndam ci kanamu Bafana Bafana yi stade Demba Diop it nee na ci lu yàggul dana ubbiwaat banlieue bi moom am beneen représentant ci national 2 bi ASC modèle bu mbaaw ñëw kon dugg si Salis Sow Asmalik Diop ñoo ñuy xam léegi ñoom. ASC modèle bu mbaaw nationale 2 lay fubal ren kon boog monté na waaye tokku tokku lañ bëgg ba seenu pandub ndox fees looloo waral ba nee ñu fii la ñeent at bëgg nañu bokk ci championnat bi maanaam Ligue on sénégalaise bi lee dañu nekk ci situation boo xam ne bi am na ñu waxoon ne mënul nekk te tey yàlla mi xam ne moo man ak collaboration Abdou Karim le directeur de l'ARTP yàlla dogal na ñu toll foo xam ne fii Euh, def nañ palier mooy maanaam jóge nañ division régionale dem nationale 2 te si kàttan suñu borom bu soobee yàlla dinañ def chaque année ñu def benn palier ba fex quatre ans ñu def championnat d'élite équipe bi nga xamante ni moo gàddu drapo bu mbaaw bi lee am na njàppale doomu gox bi. bi ñuy ubbi saison bi dañoo toogoon ak ñoom euh, jàppale leen dig leen aussi jàppale ba saison bi jeex. yaakaar naa ne par la grâce de Dieu ñun ñëpp jàpp nañ ci ba modèle de Mbao bi nga xam ne depuis 1981 eh, jógewul ci euh, régional mu ngi actuellement jàll na ren euh, ci national 2 mu nekk fierté pour euh, l'ensemble de la jeunesse. te fas ni ànd ak ñoom ba keroog ñuy jouer final coupe du Sénégal. yoon wi sori na gudd na metti na waaye jom jéeg bëgg-bëgg bi mu ngi fii. mu desit koom yi leen di tax ba la ñu bëgg mën a am. ñu ci match bi ñu doon wax sànq Sénégal war ko joué waat ak Afrique du Sud fukki fan ci weeru novembre loolee Burkina Faso euh, bégu ci ba daal euh, xam na ne ni kontaanul ci boobee dogal tax ñoom daal ne ñu jël décision saisir tribunal arbitral du sport ngir lu ni euh, ñu bañ ca ak mu mel ni coow li kon ca boobee dossier jeexagul Burkina fàttali ko moom moo fetee ci ñaareelu position euh, ci euh, poulam fii kon la ñuy daal di yem ak yéen mbokk yi ci xibaaru digg bëccëg bi jéggalu ci yéene kaay yi duñu leen ko mën a dégtal tey jii ay 19h30 20 rédaction bi dana dellusiwaat ci yeneen i xibaar ñaanal leen ngeen yendu jàmm ak programme TFM la ngeen jëf.